salaamaaleykum euh, mbokk internet yi man la El Hadj Malick Lay di secrétaire général adjoint bu syndicat SATES bu seen SEN'EAU euh, di porte parole désigné bu intersyndical bi pour ñëw tënk li nga xamante ne ni moom la intersyndical bi jàpp ci déclaration bu tey bii di le 17 ñu bëgg ko baaxee ñi nga xamante ne ñooy internet yi mais ñi gën a waral déclaration bi tey mooy ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi nekk ci biir Sen'Eau rawatina population sénégalaise bi ak le gouvernement mm-hmm. euh, bi li bëggoon a xam tey jii sëñ bi euh, li ñu bëggoon xam tey jii lan moo waral euh, ngeen jóg taxaw bëgg taxawu seen camarade bii di Mouhamadou Rassoul Mbaye ba nga xam ne dañ ko bëgg a dàq li ko li ko waral gudd gàtt mooy dañoo bëgg ñu delloo ñu suñu àq ak suñu yelef ñun bi ñu nekkee di xeex boobu ba ba léegi ñëpp xam nañ ne boobaak léegi war na mat ñeenti weer ba juróomi weer attiré nañ attention au gouvernement du Sénégal wax nañ ak population sénégalaise bi mais li nga xamante ne moo ñu gënoon a tax a jóg di xeex mooy àq ak boobu ci biir loolu 2018 gouvernement du Sénégal bi muy tënk li nga xamante ne nii moom mooy réforme bi dañoo waxaale woon ci biir poñ yi nga xamante ne amoon na ci biir ñu tënk ko ñu ne képp ku nga xamante ne ñëw na da nga indi ay àq ak ay poñ yu bëri la waaye bi nga xamante ne ñun moom lañ ci jàppoon te mu dooroon suñu wàllu xeex nekkoon na yokk payoog salaire yi di 40 pour cent ci biir loolu nu nekkoon ci di ci xeex di ci def ay mot d'ordre di ci def ay yëng-yëngal boobaak léegi ñu gis ne que ni population bi ci boppam adhéré guñu ci woon parce que xamuñu woon nekkoon ci biir mais gouvernement du Sénégal ci boppam itamit dañ ko maanaam euh, fulaalul loon faydaawul woon ko woon ñu yaakaaroon ne ñun loolu rek moo doon suñu xeex bi ñu demee nag ba bi ak suñu suñu suñu kilifa yi nga xamante ne ñoo ŋànk euh, bopp seen o ñu rawati ci ñu dem ba ci biir ñu def ci yënga-yënga yooyu ñu wëlbatiku di ci def ay sanction ci kaw personnel bi rawatina ci ñi nga xamante ne ñooy délégué di personnel yi bi mujj mooy ajjuma bii nga xamante moom lañu génn ñu jël kenn koo xamante nii non seulement délégué du personnel la mais nekk na koo xamante ne nii moom moo ñu war a teewal ca fa nga xamante ne mooy ndaje mi nga xam ne mooy conseil d'administration bi fi ñuy saytoo naka la entreprise bi di doxee fi ñuy saytoo naka la ñuy dugal ak a génnee xaalis bi nga xamante ne nii ñun ñii dañ cee am onze pour cent maanaam dañoo jël suñu xaalis def ko ci parce que ay actionnaire lañ Mouhamadou Rassoul mbay moomu moo ñu fa naroon a teewal léegi nag ñu ngi koy indil ay jafe di indil yeneen délégué yi ay jafe di affecté nit ñi. waxtuñu la loolu ñu jël conseil d'administration bi nga xamante ne nii moom moo daje keroog ajjuma ñu yóbbu fa Mouhamadou Rassoul mbay ne léegi dañ ko bëgg a dàq te kooku moo ñu war a teewal ci conseil d'administration bi loolu lañ ne duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg lii raam nag ci ñeg bi la jëm ñii nga xamante ne ni ñoom ñooy liggéeykat yi te boobaak léegi ñu nekk di xeex ñenn ñii ni nga xamante ne dañoo ànd ak direction général ba dem féete ca ñoom ñoom ñoo tax lii yëpp naxa naxa sambe waaye nag ay du weesu bàyyi dee na ñun dañoo yegg foo xamante ne nii attiré nañ attention gouvernement du Sénégal wax nañ itamit ñi nga xamante ne nii ñoom lañuy ñuy ndool te ñoom ñu ànd dem langoo ca biir direction général ba ànd ak ñoom lépp lu ñu nas ñun liggéeykat yi ñoom ñooy taxaw di di di faagaagal lool di di indi loolu li ci li ci li ci li ci euh, génn mooy ci semaine bii nu génn mbooleem ñi nga xamante ne ay kilifa lañ sax ay directeur ak yooyu yëpp def nañ ay affectation arbitraire ñii ñu yóbbu leen fii ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci xeex bi ñu yóbbu leen fu leen neex tas tasal ñëpp def lu leen neex loolu la ñu wax ne moom la ñu ñëw pour dénoncer ko entreprise bi dañu nekkul ci yoon woo xamante ne yoon wu jub nekkuñu ci yoon yoon wu baax ñuy wax nag population bi nga xamante ne ñooy population sénégalaise ak gouvernement du Sénégal dañoo war a ñëw àtte ñu diggante ñun ak suñu liggéey suñu patron yii di wax itamit ñi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal ndool fii ne ñoom ñun ak ñoom ñoo bokk kër gi suñu wërsëg la yàlla dogal mu ne fi nañu xam ne nit lu lu mu am lu ne lu yàlla bind ci jëm foo mu am ko ñu leen di wax encore une fois à la raison di wax si tamit ne direction générale bi dafa war a rétablir li nga xamante ne moom la ñuy wax équité ñu yamale bàyyi ay topp toppaan beeg ay ñi nga xamante ne ñoom la ñuy nekk seen ginnaaw di leen xoñoñal ak di leen xoxatal rawatina bii nga xamante ne moom lañ bëgg a def nga xamante ne mooy Mouhamadou Rasoul Mbaye ñu ne dañ koy bëgg dàq ñun duñ ci d'accord tey duñ ci d'accord ëllëg. léegi lan moo war a lan mooy nekk seen taxawaay jamono ji ngir jàppale seen camarade bi di Mouhamadou. dinañ ànd ak moom gunge ko ba fépp fu mbaxane nekkee benn. bi ci njëkk mooy moom délégué de personnel la te représentant conseil d'administration la danañ dem ak ñoom ca fi nga xamante mooy inspection du bu buñ fa jógee danañ dem tribunal du travail danañ dem ba ministère du travail Mamadou Rassoul mbay daal du ñu bàyyi kenn mu koy faagaagal du ñu bàyyi kenn mu koy indil ay problème parce que duñ ko nangu ñun ñoo ko fa teg pour mu toog foofu xool ñu xoolal ñu saytu moo fay sunu bët léegi nag ñoom dañoo bañ Mouhamadou Rassoul mbay dem ca conseil d'administration ba pour xam la fa nekk la ñuy nas la ñuy nocci loolu moo tax nag ñu bëgg ko jëlee foofu ñu bañ mu siégé moo tax ñu bëgg ne dañ koy licencier duñ ci d'accord tey duñu ci d'accord ëllëg. léegi ñoom suñ demee ba persister ci seen mesure ci licenciement boobu noonu yéen ana lan yan mesure ngeen prévoir. ñun li ñuy tàmbalee mooy bu subaa ak jàmm ci altine ji danañ takk ay brassard rouge pour wane waat encore suñu ñaxtu. comme loolu bokk na ci benn fànn yoo xamante ne nii moom la ñuy fasionaa doxalee bu ñu ca jógee la nga xamante ne moom mooy génnee ci réunion bi nga xam ne moom la ñuy def pour war a mën a tëral beneen plan ut yeneen jumtuwaay yi nga xamante ne moom la ñuy fasionaa xeexee incha allah du danañ ko wax ba saa su jotee. kon ñu ngi en face avec Mouhamed Rassoul Mbaye mooy secrétaire général des délégués de bi nga xam ne nii moom la ñu annoncé mesure de yi sëñ Mouhamed Rassoul Mbaye mën nga ñu dikkalaat ci licenciement boobu noonu lan ma ko waral. Euh, asalaamaaleykum mbooloom internet yi di nuyu waa kër liggéeykaay Sénégal di leen jaajëfal mhm. euh, ma xanaa ma leeral la rek Mouhamadou Rassoul mbay délégué du personnel la mhm. Mouhamadou Rassoul mbay moom la liggéey katu Sen'Eau yi mhm. wóolu fal ko pour mu teewal leen ci conseil d'administration bi moom moo am ay jafe-jafe du man rek sax daanaka ñu ñi nga xamante ne ñëpp dañ nekk ci coordination bi doon jiite grève yëngu-yëngal yu nga xamante ne amoon na ci jamono yi yëpp ñoo nekk ci ay jafe-jafe waaye daal lu leen tax jamono yi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy man Mouhamadou Rassoul mbay bu ma teew ci conseil d'administration boobu lu tax bu ma fa teew nag xëy na ñoom seen ay mébét ak seen yéene xam nañ ko ndax mooy bëggunu fa ñuy saytuwee doxalinu kër gi di fa jëlee mbooleem décision yu nga xamante ne moo war a doxal kër gi jëm ci koom bu nga xamante ne moom la dugal ci kër gi nu ngi koy doxalee nu ngi koy tëralee fu ñu koy nasee daal maanaam di fa noccee foofu la ñu bëggul ma fa pour xam lu xew ndax jàpp nañ ne xëy na bu ma ko xamee danaa ko yëgal liggéeykat yi te muy lu jaado ndax liggéeykat yi dañu jël milliards yu ak lu topp versé ko ci actionnariat wu entreprise bi ñoom nu ñu ci amee wàll noonu lañ ci amee wàll. mais ñoom tey jii biñ ñëwee di la woo xam nga loolu yow sa da jàpp ne loolu moo tax. waaw ah. ñu bugg la dàq mais ñoom yan motif lañ la invoqué lan yan raison lañ indi yow. waaw ñu ngi njëkk wax ñu ne dañ defoon benn assemblée générale benn daje boo xamante ne dañ ci invité woon honorable député Guy Marius Sagna ku ñëpp xam ci réew mi xam taxawaayam ci fépp askan di am jafe-jafe fay taxaw. di leen jàppale mu ñëw fa mu doon nag assemblée générale bu am réussite ndax wan fësal neen fa suñu naxar ak suñu mécontentement xamal ko réew mi xamal ko nguur gi ñu ne loolu noonu ba mu xewee daa daan dafa may débordement léegi débordement yooyu man maay responsable bi ñu ñëwaat ñu ne wéy man Mouhamadou Rassoul Mbaye dafa am ay commentaires yu ma def jëmee ko ci direction général bi te yooyu dafay mel ni luy tilimal gàkkal direction bi waaw ak loo xamante ne sama jumtukaayu liggéey la woon boo xamante ne société bi moo ma ko jox ma gis ne dañ ma ci doon bëgg noot parce que délégué du personnel la bëgg ñu ko awale ci yoon ma laajoon leen nañ ko awale ci yoon ñu nekkoon ci loolu ba mujj gi bon ñetti affaire yooyu daal laa jàpp ne moom leen wax ne motif mooy motif yu ñu teg ne den ma bëgg licencier. d'accord te loolu da nga jàpp ne daal nga bokk ci conseil d'administration bi loolu loolu mooy sabab bi. ndax jafe-jafe yi mu ngi tàmbalee boo xoolee ci mois de septembre bii la fekk na ci biir grève bi njiitu réew mi xamal nañ ne moom jël na en charge intérêt yu nga xamante ne waa FONSIS dañ ko gàlloon ci suñu actionnariat bi xam nga actionnariat kenn du la ko may dañ koy jënd ba nu jëndee nag dafa amoon ay intérêt yu si amoon. fonctionné woon nag du joxe siège bi tant que ñun fay ñu boru intérêt yooyu secretaire général lu SATES di coordonnateur bi nga xam ne mooy secrétaire général CSA en même temps ci premier mai bi ñaanoon njiitu réew mi pour mu jël en charge affaire boobu intérêt yi njiitu réew mi jël ko en charge waaye ban nu defee annonce bi ba léegi daal kon nga xam ne ne dara teewarul conseil d'administration ma teew fa ci laa commencé am jafe-jafe. d'accord léegi yow fu mu nekk nii lan moo nekk sa taxawaay ci ci xeex bi. taxawaay ci xeex bi mooy comme ni ko El Hadj Malick waxee rek man liggéeykat yi ñoo ma fal délégué ñooy denn waaye ñu fal ma seen représentant donc fu nu war a taxaw pour taxaw fa liggéeykat muy benn nit wala muy mbooleem liggéeykat seen woo dinañ fa taxaw sana kàddu dina jëm kaw dinañ fexe ba ay axam ay ay am mu sàmm ko loolu moom du lu ñuy laam-laame du lu ñuy bu fekkee ne. dama war a sëgg wala ma teg samay oom ci suuf nañ uti ji lu gën a diis lii waaye du tax ma bàyyi ko waaw. léegi yow fas yéene nga dem wuy ji inspection du travail kañ. waaw xam nga licenciement délégué ñoom dañuy wax seen bëgg-bëgg hmm. bu ñu waxee seen bëgg-bëgg jël dossier bi nekkatu si ñoom ajootu si ñoom day dem inspection du travail moom la naataangoo bi doon wax léegi ne lu mu jar dina ko jar. loolu waaw dafa am nag euh, lu ko encadré ndax bu ñu jëlee décision euh, bu ñu proposé ba pare dafay am fukki fan ak juróom yu ñu war a saisir inspection xamal leen ne ñun dañu bëgg dàq diw comme député rek dañu bëgg ngeen dindi maaraay kii kiiraangeem xam nga léegi nag ñoom dañuy ñaan inspection ne na leen jox ndigal pour ñu dàq délégué bi pour mu faute yi léegi nag inspection nag mooy war a décider léegi ñoom bu ñu saisir inspection rek man dañ ma koy xamal ne ma ñoom saisir neen léegi nag inspection moom ci liggéeyam dana ma woo déglu ma jàpp naa ne woowaat leen déglu leen après joxe joxe dogalam bu joxee dogalam ñaar rek moo ci mën ne wa illaa mu dëggal lu ñu wax wala mu mu bañ ko bu ko bañee procédure bi taxaw bu ko dëggalee man am naa recours saisir euh, la direction du travail cest dire ministère du travail. d'accord yow am nga yaakaar ne ci inspection du travail dina def liggéeyam. Euh, bu baax ndax nag ci euh, réewum yoon lañ nekk waaw ci réewum yoon lañ ne ku nekk am na ay axam ak ay yelleefam yu ko war muy liggéeykat bi ak muy man yépp te jàpp naa ne buñ fa demee dina xam ne lii yëpp ndëgg sërëx la waaye lay seen yéene dëgg dëgg dëgg te tamit ñoom ñu wax ko ndax nee nañ koo ëpp li mbokk mënoo ko jëw dégg naa ne kenn ci dirigeant wu seen yi dafa giin ne man duma toog ci conseil d'administration bi lu ko jaral dina ko ko jaral waaye xam naa dafa fàtte suñu borom ne moo fi ne. mais ndax grève bi mën na àgg ba ndox ay coupure ak ndox yooyu noonu ndax seen euh. seen combat bi mën na àgg ba foofu. xam nga boobu ñoom seen mbébét yëpp moo doon jaxase nag askan bi waaye comme ñun dañu responsable fii ñu ngi fi gis nii dañuy fay ndox dañu am ay kër di seen njaboot yi di soxla ndox. 2019 ñu ne nguur gi la ñoo doon xeex pour jot actionnaire tey nii. boobu seen askan bi jafoon nañ jafe-jafe ndax ñoom nguur gi la woon te nguur gi mooy askan mooy ñëpp waaye bii xeex bi ñu nag seen oo la foog mu leer ñun seen oo la amal problème kon suñu biir kër lañ koy xeexee ak lépp lu ñu yoon may dinañ ko def waaw. d'accord donc population bi amuñ benn maanaam seen mën na dal daal ci wàllu coupure fa xam nga dafa am loo xamante ne comme ni ma la ko waxee. liggéeykat ñooy doxal machine yi liggéeykat ñooy fexe ba nga am ndox yow sa kër tey donc machine yi dafa ñu koy nekk di ko liggéey di fa taxaw waaw du ñu na borom xel. donc rien à